dinañu continuer def suivi bi pour xol ndax ndax dinañu mëna continuer liggéey ak vraiment ñenn ñi donc vraiment yaakaar nañu bu baax ni bu ñu génnee ci li dal bu ñu suivre affaire bi correctement buñ ko topé correctement dinañ ci am dara. bon transport ferroviaire mom chemin de fer moom mooy mode de transport bi gëna woor parce que d'abord mom euh système signalisation bi mu yor c'est un système bo xamanteni euh, train bi day top rail bi signalisation lu mu ko lay def donc c'est un système de signalisation bu ensuite avantage du chemin de fer moy dafa meuna a ay bagages dafa meuna a ay nit transport marchandise transport fret transport mine wala phosphate parce que bu fekkente nii gaawaay ak quantité manam chemin de fer mu ci avantage voilà donc loolu euh, ci ni chemin de fer ni mu bindo la motax ci avantage xam nga toujours nga dégg ñu accident mais charge à l'essieu euh, bi yi bi defar ba ba mu ba mu contrôle noo mën a contrôler charge substance bi télé bi toujours charge bi da koy da koy yàq voilà da koy yàq ba tax nak du am yenn durée de vie bu amé bu commencé am 10 ans rek am ñoo xam sax du fa yegg day commencé magat alors que chemin de fer mën nga ko tabax muy daw nga def ce petit entretien du mot pendant juróom fukki at presque doo ko renouveler wala li nga renouveler du bëri ay points lay doon donc loolu avantage la ba pare transport chemin de fer avantage am distance transport chemin de fer pour mu rentable day gudd par exemple dafa am wax la TK mooy la tonne kilométrique maanaam booy transporter ni ngay xayma transport bi mooy tonne bi temps lay jar multiplier ko par distance bi muy def voilà xam nga loolu avantage la boo xamante ni prix bu ndaw lay

voilà donc Koku, première affaire deuxième bi mooy comme on la waxee mon bureau d'ingénierie bureau d'ingénierie là liggéey rek chemin dañu chemin de fer de boo déggee ñu la chemin de fer chemin de fer dafa yaatu spécialité chemin de fer le ngi ci génie civil am génie mécanique am télécom signalisation am informatique am euh, environnement am na qualité am gestion des projets lépp loo xalaat ci spécialité àddina bi

boo demee locomotive mon système d'exploitation, madame nous nous nous nous nous ñuy nous nous nous des ñuy nous nous nous des locomotives, mon système d'exploitation. des donc le locomotives, système bien madame système la locomotives, tabax tabax rek ñëw locomotives, ngay tabax ak

bo amé locomotive amoo ñu ko dawal amoo chemin de fer bo amé loolu lepp amoo système d'exploitation amulo amuloo signalisation parce que chemin de fer aussi problème moy mom do ñu rek freiner mu taxaw mom da ngay calculer distance de freinage bi ah bala nga yegsi fi nga yegsi loolu nak système de signalisation bi mo la koy jox voilà bu mu mo la koy xamal voilà donc système la voilà système bu compliqué la voilà mais système la